muy asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala alfatixi alxatimi sayidina muhammadin nasiri alhadi ila siratillahi almustaqim wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi alazim mbokki jullit yu tedd yi nekk ci gox yu fasantikoo yi ci biir réew mi ak ci bitim réew tànn leer ak jamono di ko leerloo muy rajo télévision bu wal fajri maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ci seen tur ci seen sant ci seen jëmm nuyoo bi gën a tedd gën a sell gën a yell muy asalaamu aleykum wa rahmatullahi di dellusiwaat ci kartanal yàlla fas yéene sof ak yéen li ma sosoon yéen ci seen ahadisu sabaax yi ñi jubale woon ko ci nidaatu rahman tey nag ñi ngi yéen ci ñeen fukkeeli wooteeb yàlla juróom ñett ci téeréem bu tedd bi bu sell bi bu màgg bi mu cay woo jullit ñi ñu nekk tey ci an nidaawu saamin wa sama borom wax ci lu ama am solo ne yaay wàllis na amunu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan é yéen ñi nga xam ne gëm ngeen yàlla mu dëggu ci seen xool ngeen tudd ko ci seen làmmiñ seen cër yi ngeen am yu feeñ yépp ñëw firndeel gëmm ga nekk ca xool ba ñu ne ko labayka yow yàlla mu indi sarta ne in tattaqullaha su ngeen ragalee yàlla ragal ga dëggu ma defal leen ci ragal ga ñett bi ci njëkk mooy yaj'al lakum furqaanan danaa leen ci defalee leer gi leeni mën a teqalil leer ak lëndëm ba ngeen mën a xam fi ngeen di teg seen tànk ca leer ga mën a mukki ci lëndëm yaag kàmbu ya waaye su ngeen ma ragalee yaj'al lakum furqaanan danaa leen defal ca ragal ga xam-xama bi yëg au lieu ngeen cee jëlee xam-xamab yër te suñu waajur wu tedd wa Seydi Mouhamadul Amin dafa daan wax ne yëg di wax moo gën a wér gën a sakkan gën a yaatu yër di wax ku bëgg nag am xam-xamab yëg di wax ragalal yàlla rek moo koy joxe waaye mu ne tamit yajal lakum furqaanan su ngeen ma ragalee ma jox leen sekkareeb Alquraan li mu làmboo ci ay ngëneel ci ay ay sekkare ak ay may ndax alquran ci boppam mooy furqaan jàng ngeen nasaral furqaana waaye duma ci yem wa yukaffir ankum sayiatikum seeni ñaawteef yëpp yu njëkk ya yu mujj yi ngeen tay yi ngeen tayut yi ngeen xam yi ngeen xamut yu mag ya yu ndaw ya su fekkee ragal ngeen ma ragal ga dëggu rek seen ñaawteef yooyu yëpp ma faral leen ko mën naa leen koo soppil sax ay yiw ngeen bokk ca fuulaaka yu fuulaaka yu badillaahu sayaatim xasana ngeen dugg ca duma ca yem mais wa yaxfir lakum ma jéggal leen seeni rëcc rëcc yëpp ma muural leen ko ba bu yowmal qiyaamee kenn du gis seeni ñaaw téef ñu ne ko ah yow yàlla ñett yii nga dëxal ñu ci ragal yàlla te moom di lenn rek nga defal ñu ci ñett yii rëy na di lu ko waral mu ne man mi koy def defle damaa bëri ngëneel borom ngëneel laa moo tax mu daanee ko wallaahu ful fadlil azim man yàlla borom a ngëneel laa gu màgg de sama ngëneel loola naa ko ku ma ragal ku ma ragal ma jox la leer gu lay teqaleeg li am li amut leer gu lay teqaleeg ci lëndëm ak leer kafaaraal la say ñaaw ñaawteef muural la say rëccu rëcc li ma nekk borom ak ngëneel moo tax ma man ko kon nag su ngeen bëggee am jàmm ci àdduna bëgg am teraanga ëllëg ci àllaaxira ak ca barsaq bu leen sonn ragal leen ma rekk ragal yàlla nag du dara lu dul teeta def li la yàlla tere ak teeta bàyyi li la yàlla digal ñaar yi rekk mooy ragal yàlla li la yàlla tere daal góor góorgóorlul te am jom ba bu la fa kenn gis li la yàlla digal góor góorlul nga am jom ku ñëw fekk la fa ku dem bàyyi la fa waaye nag na nga rus malaaka mi nga xam ne moo lay caméra ca géewu rifa ya di la caméra ca sàppe yu njëkk yi ca jàkka ja mu lay caméra tabaarakallaahu timit ci njàngam alquran maak seeti ku feebar ya waaye waaye bul mooy tundiku mukk mu lay caméra ca ndagar walla ya bum la caméra ca sabar ya bum la caméra ca restaurant ba bum la caméra timit ca ñay séq di fekki naan ña ngay baal ak yu kenn xamut rusul loola ndax su boobaa sax moom ree na ko jàpp yàlla nag boo gisee mu ñuy sant ñiy yóbbal bu ñuy tuddee ragal yàlla tukki mi ñu jëm dafa sori yoon wi dafa gudd lool te kenn ku ci nekk ni sa sorowaayu tukki yem rek noonu la waaj waajtaay bu tolloog moom war a yem kuy tukki tukki mu gàtt waajtaay wu gàtt doy na ca kuy tukki tukki mu diggu doomu yóbbal bu diggu doomu ak waajtaay wu diggu doomu doy na ca waaye kuy tukki tukki mu sori moo xam ne mën naa xëpp téeméeri junne junne junne ci ay xat kenn xamut limam ba nim toll wallahi loo ko waajal doyut loo ko xutal ci ak yóbbal doyut lu dul nga xutal ko yóbbal ak ragal yàlla fexe ba teewal ah, marchandise am ragal yàlla moo tax yàlla ne wa tasawadu fa inna xayra zaadi taqwa waaye waay waaye nangeen yóbbuloo ragal yàlla li gën ci yóbbal bii ngeen dëgmal ci seen tukki mi mooy ragal yàlla ak aaya baag lan doon wax ci aj gis nañ ko ca waay yaman yi daan sukkandiku ca nit ña nekk ay gangal ñu ne leen yéen li gën ci seen ak yóbbal bu ngeen di ci si xut lu ngeen ni mën a sukkandiku ba du ngeen laaj nit ñi mbaa ngeen taxaw ci mbedd yi di yalwaan waaw ci tukkeem xaj rek bu ca yàlla waxee loola kon tukkeem àllaaxira nag rawatina kon yoon wi gudd na te yoon wi raglu na bari na ay pakk bëri ay kàmb bëri ay wiraas bëri ay salibiyoon yoo xam ne dañoo niroo su boobaa nag tukki ma mi ngi déparé fi nga dee ñu dindi sa ruuxu gi ba ba ngay taxawee ëllëg ci sa kanam borom mu jox la say diplôme yuy tekki ne at mi nga wala yuy tekki ne danga nga échec foofa la tukki may li mu ëmb ci ay xat yàlla rek a xam ni mu toll. su boobaa nag tukki mii dana war nga wut ca wéttal gu lay dimbale ci wéetaay wa wut ca wut ca wut ca wéttal bu lay dañal ci sa tumuranke gi yóbbal booba nag wala maanaam mooy rek yóbbal ak ragal yàlla waaye foofa yóbbaloo fa xalal doyut yóbbaloo fa daraja du doy yóbbaloo fa naan maa doon président wu réew sàngam maa doon sëriñu diw ak diw yooyu yëpp doyut fa la fa doy daal yóbbal dëgg-dëgg mooy ragal yàlla ragal yàlla nag moom laa la wax ne mooy teeta def li la yàlla tere ak teeta bay li la yàlla digal Seexu Tijaan mu tedd mu tedd ma asharif firee ko ne ragal yàlla daal mooy topp ndigali yàlla yi kem sa man-man bay tere yàlla yépp te bu mucc nga defee ko na yàlla gërëmee bañ koo defee yow ci ni nga gërëmee waaye mii tukki ku ca dem te loo ragal yàlla billaahi boo teeree da ko réccu da nga réccu loo doon juddoo ndax yonent bi dafa daan wax ne ku dee ñetti wéttal ngay xam ñu lay gunge wéttal bu njëkk ba mooy sa kër yeeg sa alal ji ñoom ñoom ñoo gën a goreadi dañuy wax ne ñun duñ dem fenn kenn ku mos a dee kër ga séquhu di ko ji di ko di ko di ko di ko gunge kenn mosu ko gis saal ba moom fa lay nekk na ñum ak fauteuil yaag frigidaire baag compte bànk yàgg lépp dafa ne man déw ma fenn fi la ma fekkoon dem na baxi ma fi fi la may baxi moom toxalu na man damay toxalu tamit jëm ci ñeneen mu des ñaar ñaar ña nag mooy maanaam ñoñam ña alalam ja jëfam jë gis nga ñoñam ña diggante doom yaag bàyyi yaag xarit yaag soppe yaag mbokk yaag sëriñ yaag yépp ñi gën a xam wëllëre man nañ laa gunge ba nga yegg ci sa buntu pax ma waaye fala la am kenn du dugg bu ko defee nag xalal ja man di du ma génn kër gi de muy ñaareel ba ñetteel ba ne may leen ma yoon su ma mayee danaa dem su ngeen ma mayut danaa dem loolu nag mooy jëf ja su baaxee mooy ñëw dëkk ak yow bu bonee mooy ñëw dëkk ak yow xalal dellu njaboot moom tamit dellu mu des jëfam moom la yonent bi ne yatbaul mayita salaasatun fa yarjiu isnaani wa yabqa maahu waxidun yatbauhu ahluhu wa maaluhu wa amaluhu fa yarjiu ahluhu wa maaluhu wa yabqa amaluhu muttafaqun alayhi hadis la boo xam ne alquran rek a ko gën a wér ndax muslim ak buxaari yu yëpp ñoo dëppoo ci solo ko mu bokk ci hadisu anas ibnu malik mi daan mbindaanu yonantu bi wax ne liggéeyal naa sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallama fukki at musul maa wax baatab lima lima nag bu ko araab waxee ñaara ko tax a jug loo waroon a def te defoo ko ñu ne lu tax wala loo waroon a def te def ko nga defee ko nu wuuteeg na ko waroon a defee ñu ne wax la lima lu tax defee ko nii wala sax loo xamee ne nii waroo ko woon a def sax nga far def ko ñu ne lu tax nga def ko li ma faaltuhu lan moo tax nga def ko kon li muy tekki mooy kilifaam jile mat naa bon njaboot yaatu na gannaaw te gannaaw ga la mu yaatu yaatu amul dëkk kilifa yëpp war koo roy donte nuñ koo jot waaye ku roy ku kenn mënta jot yow mi koy roy tamit kenn du la mën a jot waaye njabootam ji di anas li muy tekki tamit xem na ci loxo bu xemutoon ci loxo rek dana bari lu ko yonantu bi di artu waaye kon ñett ñaa ngóog néew bu ne ñett lay gunge ñett a koy topp kër ga moom ak alal ja dafay wax ne déwuma fenn moo tax ñu koy tuddee wër wërsëg mooy maanaam wër na sëg yi oto yooyu ñëw wër sëg yi tabaarakallaahu kat kat yi waaye kenn du dugg ci biir sëg ba njaboot gaa xarit yaa soppe ya dugg waaye kenn du dugg ci biir bàmmeel ba jëf ji jëne may leen ma ma dugg su fekkee jëf ju baax la waroon day soppeeku jëmm ju rafet ju taaru di xeeñ xet gu neex nga naan ko yow borom jëmm ju rafet ji soppeeku xame xet gu neex gile waaye waaye dawal nga dëgmal ci te yegg mu ne waxuma yegg waaye damay soppeeku lal nga tëdd ci sama kaw maa la waroon bañ nekkee ci àdduna tey yaa may war fii ci barsaq maa doon njàpp la doon jàpp ca jamonoy sedd ba maa doon na dàll ya tànk ya nga doon nàmm jëm ca jàkka ya ca lëndëm ga maa doon allahu akbar asalaamu aleykum ya nga taqoowoon ci sa néeg te kenn gisul la maa doon sarax yi nga doon sàkk di ko dimbalee néew ju doole yi jublu ca yàlla kese waaye duwut sarax booy am looy dàq pour jot ca mbaa looy dàq bañ mu jot la nga wëndeel ko sa bopp bi juróom-ñaari yoon door koo sànni nit ngir bëgg mu dal ca kawam waaye man mii maa doon jokk bokku ga maa doon muñ kàddu yu bon ngeen la daan wax nga mën koo faj nga noppi maa doon dépense ya nga doon joxe maa doon alquran ji nga doon jàng maa doon xoor koor wi nga daan xoor maa doon asaka ya nga daan joxe maa doon yoonu makka ya nga doon tumuranke lima lima lim ba kenn mënu koo jeexal maa waroon ci sa kaw ci àdduna yàqal la sa temps lu bëri jël ci sa tabaarakallaahu sa alal lu bëri jël ci sa jëmm lu bëri tey nag damay soppeekub lal nga tëdd ci sama kaw ba ba ñuy walee bufta ba nga téye sa téye sa sa téere bi ci loxoom nday joor jëm ca péncam yàlla ma jéggi siraat dem sa luusuma ba ci aljana su fekkee ne nag tabaarakallaahu jëf ju bon rek nga fi nekkee woon jëmm ju xasaw ju ñaaw ba raw mbaam xuux mbaa ñaaw ba raw golo mbaa ba ñaaw ba raw yuuma moom lay doon ànd ak xet gu xasaw ñu hubbi ci sa biir bàmmeel nga seen ko muy daw di ñëw ngay jéem a ut foo laqatu naan ko yow jëmm ju bon cu xasaw ju ñaaw jii bul ma jege de mu ne waxuma jege de waaye wallaahi ci sa kaw laay war man maa doon jëf ju bon ji nga xam ne moom nga waroon tey nag danga maa waroon ci àdduna tey fii ci barsaq man maa lay war maa doon fen yu rëy ngi doon kàcc ci réseaux sociaux yi di ko kàcc ci famille bi di ko kàcc maanaam tamit ci pénc mi di yàq nit ñi maa doon jëw yi nga doon jëw nit ñi di ko bànneexoo maa doon rambaaj ga maa doon cigarette si nga daan tux maa doon sàngara si nga doon naan maa doon jong ma doon tëddee di njaalo te yaa ngi denc mbaa denc goo mbaa denc guñ la maa doon maa doon jëf ju bon jooja man mii maa doon riba bi nga doon lekk man mii maa doon nger muy corrompe bi nga xam ne da nga ko doon laaj ni ngi tardel seen dossier yi waaye man mii maa doon xaral ji nga doon sàcc man mii maa doon kees yi nga xam ne moom nga doon këpp man mii maa doon xol bu bon bi nga nekkoon ci sa xol bi di yéene nit ñi lu bon ngir bëgg ñu torox wallahi tey ngay door a hegg nag ci torox taane tey de bañ nekkee tey de yaay nekk sama lal ma tëdd ci sa kaw dootuma wàcceti mukk ma ànd ak ay jaan ànd ak ay jiit ànd ak ay dëkk ñi lay jam di la matt ngay yuuxoo ko jooy te doo xam kenn ku la wallu ba nga ba nga ba nga ma waroon nag bañ nekkee àdduna nag yaa ma waroon rek di bànneexu lekk xàllu nit ñi léeg-léeg nga raay sa koll bi laa wàccee say kat kat tabax say étage jong ma yu wër la kenn du la gàntul ci dara nga wër sa saal bi nit ñi teg bool yi ngay kàcc rek kenn du la mën a wax ni waxoo dëgg lu la neex nga wax ku la neex nga gaaral tey nag man mii may jëf ju bon jooja nga waroon yaa ma waroon démb waaye tey maa lay war fii di la matt di la jam ba ba ñuy walee bufta ba nga téye sa téere bi sa loxob càmmooy jéggi siraat surax dem safara man laasmaa laa mais xegg goo ca film ba kon nañ bàyyi xel ci loolu bu baax képp ku ñu suul ña suuloon bu ñu doxee juróom-ñaari jéego rek bu ñuy wanee gannaaw rekk yàlla hebal ñaari malaaka yi ñëw war a régler sa jëf yi ñoom sax yonantoo wax ne ñoom ñooña ñëw war a régler sa jëf yi te nañ dégg yëngatoog dàll ak ña la suuli woon ba ñuy ñibbi yonantoo ko wax de su ko defee nag sallallahu alayhi wa ñu teewal la laaj la luy sa kuy sa fuy sa luy sa diine fuy sa xibla kuy sa borom ah yooyu yëpp dañ la ko laaj kuy sa yonantu su ko defee yii la yëpp boo nekkoon ci ay caaxaan ak i tappale jël sa bakkan bi tabaarakallaahu def ko muy sa kilifa ah tontu yi yëpp doo ci mën a tontu dara su ko defee nag ñu ne yow ñeenti laaj lañ la laaj tontuwoo ci benn wala ñeenti laaj lañ la laaj tontu nga benn échec nga ci ñett ya kon admis huloo ñeent lañ la laaj tontu nga ñaar tontu huloo yeneen ñaar ya échec nga ñeent la laaj boo tontoo ñett tontuwuloo ñeenteel ba sax échec nga ñeent yëpp nga war a tontu door a mën a at mi pari escalier la foofu moom cent pour cent rek mooy tax nga jàll ndax bu buñ la laajee kuy sa borom nga ne yàlla ñu ne la kuy sa yonantu bi yonantu moomu nga ne sayiduna muhammad yonantu boobu sallallahu alayhi wa sallam mooy dëggal ne yàllaay sa borom mu ne ah wax na dëgg de yàllaay boromam waaye sax dëggal man maa ko dëggal yow ma ci mais dëggal naa ne man maa doon ab yonantoom ñu ne la fuy sa xibla xibla bi taxaw seede ne da wax na dëgg man mii maa doon xiblaam guddeeg bëccëg dafa daan julli di ma jublu ci fa wëlli wajhaka shatral masjidil haraami dernière question ba nag nga xam ne mooy dëggal question yi yëpp ñi mën ko valider mooy alquran luy sa téere nga ne alquran su fekkee ne nag dëgg la alquran moomu dana dëggal Eh, yàlla nekk gim nekk di sa borom ak yonantu bi nekk gim nekk di sa yonantu ak xibla bi nekk gim nekk di sa xibla muy kaabatal musharrafa waaye su fekkee ne nag yooyu yëpp alquran ñëw weddi ko ne musul maa musul maa jàng musul maa jàngalu mu ngi ay doomu su leen dugal ca daara ja man mii mënutoon ci man dara ña ma doon jàngale gënoon a xeeb ko société bi naan ndong yi yelwaan xasaw kenn xamul lu ñuy niru nangam ak nangam yu mel noona su ko defee ñett yi nga njëkkoon a tontu yëpp yàqu alquran nay ñëw dindi lépp duñ ca wali di dara moo tax kon nañ fonk alquran Seydil Haaji Malik mu baax ma dafa daan wax ne nit ku nekk lam ci yonantu bi maanaam fonkam alquran am moo koy seede moo koy dëggal loolu lay junji laaje àllaaxira yooyu lay lay junji su ko defee kon nag nañ ci bàyyi xel mu ne alquran huwal misaan mooy mooy baskil bi ñuy peesee mbir ya de su ko defee nag kon yóbbal baa ngóog moo fa mat yóbbal muy muy muy ragal yàlla alquran ne wa tazawwadu fa inna xayra zaadi taqwa nañ ci baxi xel ci mi la yóbbal ragal yàlla mooy dundal xol yi ragal yàlla mooy xee xol yi ragal yàlla mooy dàq ak wéetaay ci ci xol yi mu mën a wéttalikoo boromam ragal yàlla mooy lumière bi mën a leeral xol ragal yàlla moo mën a dundal ak ruux ragal yàlla moo mën a dimbale nit ki waaye gis nga ni ko yàlla defee rek moo lay yéem ni mu indi aay ji xoote ba pare ñu foo ne day digle moo indi sarta bëriwut ci yaa ayyuha yi ne yaa ayyuha alladina amanu ñu ne ah kay labayka mu ne in indi maanaam maanaam addaatu sart bëriwut bam ñu ne ko labayka mu ne in tattaqullaaha laa wax su ngeen ragalee yàlla ragal gu dëggu ma defal leen ñett bi ki njëkk mooy yaj'al lakum furqaanan benn wa yukaffir ankum sayyi'aatikum ñaar wa yaxfir lakum ñun ñett ñu ne ko lii nag noo ko manee mu ne lu ko waral lépp mooy wallahu zul fadlil azim billaahi yàlla ni muy daanee laaye yi rek moo lay daanee kon sarta la indi ñi bàyyi ci xel bu baax a baax boo boo demee ca daara ya ci lay delluwaat ci tuuti rek fàttali ndongo daara ya ne fii dafa indi jumlay sartiya def ko ci bu sarta njëkkee ko ci addaat jumtukaay jumtukaayu sarta boo xam ne mooy xeew ñaari jumla yi jumla bu njëkk ba la tuddee sart bu ñaareel ba la ñuy tuddee jawaabu sart in tattaqullaha jooju mooy jumlatu sartiya bi yaj'al lakum furqaan mooy jawaabu sarta bi